nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi ñoo ngi sàkku état bu Sénégal jël ci ay matukaay yéenekaay gi di alerte ñu xëy fekk fa Fatoumata Ndiaye bu Fuuta Tampi muy alerte di dànkaafu nee na jamono ji maanaam fetal lay doxontoo ndax du bàyyi ñu koy rey ndax nervi yi nga xam ne moom lay gis ci réew mi moom faatu Fatoumata Ndiaye jàpp na ne lenn kese rek moo ko mën a fàcc maanaam jël fetal comme ñëpp ku ko laal mu dóor la bal yéenekaay gi di enquête ak réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Wade jamono ji ma ngi waajal bu baax li nga xam ne mooy élection yi yi ndax nag goote na li nga xam ne mooy ab séminaire am mboole maire yi nga xam ne ñoo bokk ci PDS yéenekaay gi di L'As xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi ak lu jëm ci wàllum mbind mi maanaam révision liste électorale journal bi nee na léegi tey ñu door ko ndax ministir bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum intérieur daat nay bind ñi nga xam ne ñooy préfet yi ak sous préfet yi ñu jéem a teg ay commission yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak di Quotidien ak L'Observateur ak Vox Populi Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu M23 tey jii la anniversaire bi tey ji la fukki at ginnaaw bi mouvement boobu maanaam juddoo waaye nag journal bi di réew mi quotidien nee na su dee am na benn laaj boo xam ne war nañu ko laaj mooy que t il du M23 yéen a kaay gi nee na en tout cas li am ba des àll mooy bëri na ñoo xam na nekkoon nañu fi jamono ji dem nañu fekk nguur ay complice nguur lañu yéen a kaay gi de la Tribune nee na en tout cas li am ba des àll tey ji ci àllarba ji la anniversaire M23 waaye nag mercredi show noonu la ko journal bi tuddee guerre des mobilisations diggante M23 ak mouvement pour la défense de la démocratie ndax ñi nga xam ne ñooy waa M23 ñoom nee nañu ñoo nga place de l'Obélisque tey jii ginnaaw di bëccëg mouvement pour la défense de la démocratie ñoom ñoo nga teere HLM Grand Yoff yéen a kaay gi de la sa di ñu xibaar naan ñu mouvement M23 li si des bëreetul waaye bataille d'héritage lañ si gis beeg ñi nekk ci pouvoir bi ñoo koy xëccoo yéen a kaay gi de Les Échos xëy yóbbu ñu diiwaanu Kaffrine Kaffrine gi nga xam ne fan yi ñu génn inauguré nañ fa ab hôpital journal bi nee na hôpitalu Kaffrine ba commencé na am li nga xam ne mooy ay jafe ay gàllankoor encore yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diiwaanu Mauritanie nee na Mohamed Ould Abdul Aziz mi nga xam ne ay jamono jiite woon na réew ma niki démb ba vingt heures di jot la ko teg loxo yéenekaay gi nee na tegati loxo lu jëm ci wàllum corruption wàllum détournement ngar dajjoo alalu askan wa ak lu soxal wàllum blanchiment d'argent loolee la ñu koy toppee yéenekaay gi di direct news ñu xëy fekk fa El Hadji bu 2STV mu mer ba futo yàkk i samay fréquence 2018 ba léegi dugal ko satellite te loole nag munuma koo bàyyi mu sedd El Hadji Ndiaye nee na du deltu ginnaaw te soxlawu si am médiation ndax nag nee na bokk na si ñi nga xam ne ñoo fabriqué Youssou Ndour de toute pièce banditisme gi nga xam ne moom la Youssou Ndour ak i rakkam di def jamono ci El Hadji Ndiaye nee na dina ko faj ba mu fajo yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le soleil xëy dañu xibaar na ñu ni ki démb sa jam ñaajo njiitu réew mi di président Macky Sall daan nga xam ne mooy data ñu man faa nag stocké li nga xam ne mooy mbooleem li nga xam ne ay données administratives jëf la document yépp la fay denc journal bi nee na xam ne mën na kaa yombal yéene kaay gi nee na bu mat sëkk njiitu réew mi di Macky Sall ci la soleil nee na mbooleem données yi nga xam ne yóbbu woon ko bitim réew nañu ko andi ci réew mi ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi entreprise nationale yi ñoom ñëpp seeni données nañu ko yóbbu fële nga xam ne mooy ca centre ba ba ci biir journal bi di Dakar Times nee na Sénégal jamono ji nag mën na ñoo producteur pour mu tournel ko ab série boo xamante ni ñaar fukk ak ñeent épisode lay doona jël lu toll ci douze millions jox ko ba léegi nii amul benn épisode boo xam ne waa ji daan na koy produire moo tax ni ko démb mu yóbbu ko fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi di esat xëy duñu xibaara naan ñu coupe d'Europe tey jii match bu rëy dina am diggante France ak Portugal yéen kaa gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Sa Thiès rakku Balla Gaye numéro deux ngi mettre en ki nga xam ne mooy Moussa mi mu war a bëree la Sa Thiès nee na mooy diriger combat bi te ba pare